sëriñ Saliou jooy naa ko jooyu xol yu foor man ñàkk naa wursu foor jant la moom moo mu muur leerub biddiw yow xamal sëriñ Saliou sunu cër yi weet xol yi daara yi weer kër yi weer yëgal ni tey jii fépp weer kuy wetilee te amatul nee li ci def nag yàlla yori jaamam te yërmande la leen yore yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek te yaatal ko lool yërmande geeg yaatal gi day ñaan rek mu yokku nee mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. bu baax waaye yéen na ko ñaanal bu baax. Serigne Saliou nag ñun waxtu nekk duñ jug ci di ko ñaanal waaye tey da cee ndax tey moom bis spécial la boo xam ne dañ koy def. ngir fàttali ko ci ngir ñaanal ko ci te xam na ne ñëpp xam ne ñaan moom ni muy jariñee kuy kii kiy dund noonu lay jariñee ki nga xam ne moo fi moo fi moo fi génnee suñ sëñ Tuubaa waxoon ne isi doa yan faxu maytan fil xubóor waaye yan faxu xayya wuyu jibul ujóor kon nag ñu ni suñ koy ñaanal waxtu wu nekk moom i dañuy ñaanal kon ñaan gi ñaan la goo xam ne ñun lay gën a jëriñ ka moom sax ndax moom wax dëgg yàlla li mu waroon def lépp def na ko kon dañuy ñaan rek suñu borom mu taas ñu ci barkeem ba lii nga xam ne tamit ñi ngi koy def muy fàttaliku bi Serigne Saliou bi te fas yéene ko cee ñaanal donc moom mooy jubluwaay bi ah, mbooleem luñ ciy séentu ci tuyaaba mbooleem luñ ciy séentu ci yool di ñaan suñ borom bi subhaanahu wa taala mu mu defal ñu ko ci barke xasida sëñ Tuubaa yi ba tax ne boo xoolee jamono fi mu ne ndaw ñëpp ñu ngi riir eh, dëgmal Serigne Saliou ndaw ñëpp ñu ngi ànd ak Serigne Saliou di ko liggéeyal guddi ak bëccëg suba ak ngoon boo xoolee bépp ndaw boo xar rek xol bi di nga ca fekk Serigne Saliou daara yi bari na fondation yi fédération yi lépp rek dugg Serigne Saliou fan yi boo gisee tool yi ni muy mel xel ko nga gis ndaw ñi ni ñuy liggéeyale Serigne Saliou ci fet fondation yi rawatina waa fondation ànd jëfal Serigne Saliou nga xam ne Serigne bi yàlla fay na ko ci waxam joojee mu waxoon yàlla wusi na ko ci ndaw ñi daal seen yitte yëpp seen bëgg-bëgg yëpp mooy liggéeyal Serigne Saliou seen yitte yëpp mooy fexe ba am ngërëmal Serigne Saliou Mbacké seen yitte yëpp mooy fexe ba jéem donte mënuñu ko delloo Serigne Saliou Euh, yitte ji nga xam ne joxoon na ko ndaw ni la ñu yaroo ci moom la ñu nekk lu tolloo fukki at génn ci moom ñëw fii euh, di ànd ak bokki taalibe yi di ko liggéeyal li ñu a fàttaliku ci moom daal mooy yërmande ji yaatu na yaatu ni loolu moo waral ndaw yi nga xamante ji yëpp daal di euh, ñëw dëgmal ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou li ñu mën a fàttaliku ci moom mooy njàngum xasida ak alxuraan mi nga xamante ni fësaloon na ko ci ndaw yi ba bi jamonoom da ngay gis ne kuréelu xasida yi dañu bari lool ñi euh, kuréelu diw kuréelu kuréelu nangam boo xoolee ci la gënoon a xewee ak daayira yi loolu di loo xamante ni fàttaliku nan ko muy lu ñu remarqué ci Serigne Saliou nga xamante ni loolu dafay rek euh, confirmer li nga xamante ni moom la doon wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ñoom la Serigne Touba daan def ci mag ñi loolu tey ginnaaw bu mu demee tey ñu nekk ci 14 ans bi mu demee ak léegi ñu gis na ndaw yëpp ñu ngi euh, mobilisé wu di wuyoo ci benn tur muy liggéeyal Serigne kon dañuy jàpp ne xamante ni réussir na mission bi nga xamante ni moom la doon la doon euh, dox ci jamono ji ba léegi nii mission boobu mi ngi dox te jàpp naan ni ay euh, siècle siècle ci kanam dañuy gën a xam ki nga xamante ni mooy jëmmi Serigne Saliou. ci na ci nga jàpp ni Serigne Saliou ni ko olof yi waxee garabu guy bu taxaw la nga yor nga si ndax tafu ca la sa xar kanam tollool dong nga ja xam la ci def moom xamoo ko noonu nag foofu la ñu ci ci Serigne Saliou. yàlla it dogal na ci coobareem ci mbaaxam ñun sëriñ Saalihu moo nu ko ci suñu ay waajur waxe nu yaral boppam lu nu xamit ci moom la ñu ko xamee bañ jógee ci moom ak tayit nit jàngalu dara kon mun xam ginnaaw yàlla ak suñuy waajur jëm bi sëriñ Saalihu Dia sëriñ Saalihu nag mos xam laa ko tuddee man ndax ku ci ne ci ñun féete na foo xam ne si nii jàpp nga ni yow rek la Serigne Saliou nekkaloon. Euh, mënuma wax ci moom ndax bu may wax ci moom sama xol dafay tooy ndax dama gis ne man mii di Abdou Lahad moom man maa ko mujj liggéeyal ci kaw suuf muy baas yi nga xam ne moom lañ ko defaloon ci njàngum kaamil moom nga xam ne. bis boobu ci la ci lañ ko ñaanal nga ni baas yi ko doon ñaanal man mii la ko sasoon ma ànd ak sëñ Saalim yi ak bu Saal ñu bari ñu bokk def ko ak xam sëñ Xaadim Seck sëñ Bay sek ñu bari ñu bokk def ko kon kooku eh, yéem gu ma yéem ci taxawaayam dafa bari bokk na ci lim daan wax naan moom de lu dul diine amu ci yàq amu ci defar loolu mu bokk na ci li ma gën a marqué ci ay discours am maanaam moom léppam daal diine la woon nga xam ne moom mboolem yi nga xam ne yëfi àdduna donte nag donte nag Serigne Saliou moom dafa amoon dund gum daan dundi mooy léppam yàlla la waaye li ko war ci àdduna yi da ko daan bàyyi xel li ko daan war ci àdduna lépp da ko daan bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax moom noonu la daan dundee discours yi nag loolu moom ci gën a marqué mooy lépp lu dul diine aw ma ci yàq aw ma ci defar loolu nag aw déggin la laaj aw déggin la laaj ndax ñëpp xam ne donte nit ki léppam suñ borom la war a doon waaye nag àdduna dafa am cër bu mu ci am boo xam ne cër boobu tamit da ko war di bàyyi xel moo tax mbooleem yi nga xam ne def na ko mbooleem réalisation yi nga xam def na ko ci biir dëkk bi loola mooy wane ne kon moom bàyyi woon na xel àdduna gi bu baax a baax waaye nag mosoo koo gis moom Serigne Saliou muy jëm fenn wala muy dox ci lenn loo xam ne suñ borom nekku ci wala suñ Tuubaa nekku ci loolu moom bokkoon na ci li ma gën a marqué ci discours am sama baay wax na ne ma sax boo gisee médaad yi mu koy faral daan jàng lu bari moom njanaaw yi la ci saafara kon sëñ Saliou kenn du moom mooy maam dum Tuubaa ñun nag ñu am fête bu baax a baax xay gi boo gisee xay gi niñ ko wëralee nii loolu sama baay am na lu mu ci leeral ndax dañ daan fekk sëñ Saliou ba ci biir di ko siyaare mu ne sàllaaw de yéen a ngi umpale xay xay gi mooy man kon jamono ngi ñëw Ah, loolu mu doon wax noonu jamono ngi ñëw ndax bakkan bu bu ñam dund na ñam dee ndax yàlla moo bind waaw dund dund neex na lool waaye doomu aadama yi nañuy sóoraale maanaam ak faatu ndax tamit euh, li sama baay di wax nee na bu duggee sa kër ah, loo def bendeel ko soru ru du génn sa kër. mooy waxam juree jooju mu waxoon nga xam ne nii mbindeef mosu koo wax muy jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Touba defoon ca mag ña. donte yayoowu ma ko it ma barkeeloo ko loolu daal bokk na ci li ma gën a marqué ci discours am te doon wax ju rëy ci man joo xam ne ba fi mu ne nii dama koy xalaat mu doon lu màgg loo xam ne jamono yonent ba léegi Serigne Saliou rek lañ mës a dégg ko wax lu mel noonu. moom nag mission bi ko Serigne euh, Touba dox la woon moom ci wàllum ndaw ñi la jëm moo tax bi mu jugee xam na ne ndaw mënoo koo mënoo koo jubbanti loolu da nga koo jàngal ba noppi ndax loolu sax daana ko wax moom. ndaw boo bëggee mu tekkee ci yoon siraatal mustaqim da danga koy jàngal ba noppi moo tax bi mu commencé li mu njëkk def mooy sos ay daara daara yi nag lan moo ko taxoon a jug mooy jàngal ndaw ñi ak tàggat leen moo tax képp ku génnee ci daara yi Sëriñ Saaliw da ngay gis defaru gi ne ci moom kon moom ak defaroom moom foofu la ko tàmbale woon da ngay gis ne kon moom li jitteem yëpp ci ndaw ñi la woon boo xoolee ndaw ñu baree bari boo gisee ñu naan la euh, ayug Serigne Saliou ayug ndaw ñi la loolu moo ko waral. foofu la ci desaan mooy yërmande Serigne Saliou ci jaam ñi nag mom da neexu tudd ma des nako xalat ci xalaat cim xel waaye tudd ko ci làmmiñ mom yombul ndax serigne saaliw bala nga wona mana xam kan moy serigne saaliw nga don tuutub don tut tank nek ci mom bay magum jëm kooku moy xam serigne saaliw yéen manam ci digganteem ak jami dama ñew ne ko man de mbacke sama soxna day day toll ci sayu yu amee dom saa yu mu yàqu mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ma maa ngi ñaan sëñ Touba anamu ma ne ko ma nga ne mu ne maa ngi ñaan sëñ mu xool ko daal di jël ñaan jox ma daal maa ngi ñaan sëñ lu ñëw ma ne ko mbàkk ma nag dama laa bëgg tudde doom ndax ma sooy dama lay doom nag mbàkki mu ne ma ngi ñaan sëñ Touba lu ñëw yàlla toog keroo bi nga xamee ne li ma gën a yëm mooy bis bi mu nelawee bis boobu ci la sama doom boobu juddu may sëñ saalu ci bis bi ma tuddee ko kon loolu wane na ne ñaan gëm ma lam ma wax dara dañu ci kon sëñ Saliou wax dëgg yàlla euh, man ñaan gi nga xam ne moom la ma joxoon nga xam ne moo ma ko joxal boppam jox ma ci loolu ma jox ko soxna si mu naan. xam nga koo xamante ni moom la jàpp ne euh, yar na lu toll ci soixante mille euh, personnes te soixante mille yooyu boo xoolee mën nañu ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ay ndaw lañu. kon kooku ndaw yi ñoom ñoo ko ameel ameel njukkal loolu jàpp naa ne ci histoire buñ ko doon xool du bari du bari yaakaar naa benn lay doon benn nit boo xamante ni yar nga ci lu toll soixante mille personnes yoo xamante ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp ay jeunes lañ te ndaw yooyu mu doon yar dafa am benn kàddu boo xamante ni daf ko daan wax muy Serigne Saliou mooy ku ndigal tax a naaje boo jógee da dabe ndaw yi Serigne Saliou yooyu nga xamante ni ñoom la doon yar tey boo xoolee bi nu génnee dañu maîtriser jamono ji maîtriser goo xamante ni mënuñu leen a xàmmee ak ñi nga xamante ni bi ñu juddoo ba léegi ñi ngi affronté jamono ji ak àdduna ni muy doxee ndax euh, ñooñu dañu dañu dañu nekkoon ci benn environnement boo xamante ni Euh, foo xamante ni àll boo xamante ni doo gis télé bu dee rajo maa nga koy gis wala sax man nga ko bañ a gis ba koy dégg nga xamante ni ngay dund ci beneen monde waaye boo génnee foofu boo jëwee jamono ji fu mu mën a toll da ngay a ànd ak moom adopté wu ci loolu nga xamante ni loolu beneen kimtaan la boo xamante ni man sax dafa may jaaxal ndax dañuy nekk ci domaine yoo xamante ni daf ñuy wér na du suñu xam-xam du suñu njàmbaar waaye dañ koy teg rek ci baat bi nga xam ne moom la doon wax ni ku ndigal taxa naaje boo jógee na ngay dabe. waxtu wu nekk rek su dikkee sama xel mi muy muy muy gën a am lu ma yëg mooy damaa gis mooy euh, cofeel gi mu amoon ci ci sëñ Touba maanaam daa bëggoon sëñ Touba ba jeex ci moom man loolu moo ma gën a moo ma gën a marqué ci sëñ sëñ Saliou xam ne saa ñëwee ci man rek damay gën a xam ne kon man mii fi ma nekkoon war naa koo gën a yokk mooy moom ni mu bëggee woon sëñ Touba ba noppi nekkoon doomi sëñ Touba kon da ngay wane loolu li muy wane mooy ndaxte bëgg sëñ Touba kat bëgg sëñ Touba rek moo mën a jariñ nit ci kaw suuf waaw loolu moom dama ko dama ko dama koy saa saa bu ma ko seetloo ci moom rek saa bu waxee bay tudd tudd suñu borom it gis muy defaat même façon boobu da gis ne kon loolu dafa am ragal yàlla gu ne moom goo xam ne waxtu wu nekk ci biir ay waxam day day day def jeexit ci moom waaye day am goo xam ne dafa nekk ci moom waxtu wu nekk bëgg suñ tubaa googu day def ay jeexit ci moom loolu daal bokk na ci li nga xam ne moom saa bu dikkee sama xel mi rek am leneen lu mu gën a def lu mu gën a jeexit ci sama ci sama ci sama xol saa bu mosaana wax ñun ba àgg ci leeral tund jeewal wo moom daan na tuur xéewal goo xam ne si ni dalay yëg ne sëriñ Saliou moom am na yëg ci sëriñ Touba ba ci tasaatit mooy Cheikh ma Fall moom moom la jëloon def ko li tubaab di wax mémoire ci kanamam saa su ne lu mu lay wax ci Cheikh Ibrahima la koy tibbee bu koy ci Cheikh Ibrahima la koy tibbee ndax dafay daana wax ne sëriñ Touba ku ci jariñu mu néew mu bari ak nu mu toll na nga ko sante Cheikh Ibrahima ndax Cheikh Ibrahima loolu daanaa ko faral di gës ci gës ci discours am lu baree baree bari ndax sëriñ Saliou eh, li wér te wóor mooy waxam ci diggante ak ak ñun mooy nu nit di jaamoo yàlla ak it nooy toppee sa kilifa ci waxtu wu ne ak noo mën a jëriñoo Sëriñ Tuubaa kese la daan wax ak ñun leneen lu ci des mbirum ñam ko daan seeqal ci mbirum àdduna la waaye nun xam ne njabootu boppam la nu woon ci nii la daan waxe ñun roy loon se roy loolu ñu Seex Ibra rek waxtu wu ne muy guddi muy bëccëg